ci kaso bi naan dama bëgg a. <laughs> léegi léegi l' la <laughs> euh, nationale euh, l'APR wala Benno Bokk Yaakaar reste majoritaire. ba tey maanaam euh, ñële ñoo exécutif mais pouvoir législatif bi yéen yéen a ko yor. ba fi may wax voilà ban taxawaay ngeen war a am tey jii nii ci contrôle action du gouvernement ak xëy na peut-être xam ne on a une opposition parlementaire très très forte. taxawaay bi ñu amoon rek taxawaay républicain lépp loo xam ne dafay doxal. réew mi avant yéen a ak yu loo li mosuñu loo xam ne lii du lu baax ci askan wi. loo taxawaay boobu mooy taxawaayu républicain muy taxawaayu opposition républicain aussi bi nga xam ne moom la ñu nam taxaw moom la ñuy fas yéene taxaw lépp loo xam ne baax na mm-hmm. baax na pour sénégalais yi danañ ci gunge gouvernement bi ba mot sëkk lépp loo xam ne àndul ak li askan wi bëgg bu ñëwee liñ ci war a euh, euh, contre danañ ko contre te it dana Sénégalais yi danañ ñu ci dégg. Mm-hmm. bu jot du ngeen du ngeen ko def une arme de blocage par exemple. non du ñu bloqué dara lu jëm ci lu jubal réew mi lépp lu ñu bloqué day fekk baaxul ci réew mi. lépp lu doxal réew mi lu koy jubal lu koy jëmale ci kanam danañ ci jàpp danañ ko jàpp danañ jàppale gouvernement bi mais nag lépp loo xam ne tamit jëmul kër. du doxal réew mi day indi féewaloo ci réew mi li nga xam ne moom la ñu ci yoon may bu ñëwee danañ ko jëf moom mën sëkk Ousmane Sonko qui était un opposant ngeen sonal ko trop mhm. bi ngeen di yor majorité bi à l'Assemblée ba bu nekkee opposition métti woon na ci moom mhm. daawul sax wax ngeen déglu ko mhm. tey jii il doit revenir ci beneen casquette en tant que premier ministre war def DPG fan yi du ñëw euh, seen relation naka naka la nar a demee maintenant que les rôles ont changé ñu ngi koy déglu rek premier ministre moom am nañu abati déglu ko du benn du ñaar déglu nañ fi euh, euh, ñoom abdul mbay mhm. déglu nañ fi Mimi Touré déglu euh, Mohamed Boun Dionne yàlla na ko yàlla yërëm amiin amiin déglu Amadou Ba voilà déglu premier ministre du lu bees ci ñun en tout cas lépp lu mu indi ñun danañ ko déglu lu ñu ci war a àddu danañ ci àddu li liñ ci war a jubbanti danañ ci jubbanti liñ ci war a apprécier danañ ko apprécier. lan moo leen wutale ak ñoom parce que ñoom bi ngeen euh, falee Amadou Ba jéemoon nañ ko daaneel à travers benn motion de censure antuwul ba tax kenn ci ñoom sax le porte-parole du leen araftu euh, di leen jox euh, voilà xam ne ne duggee ci loolu dina dina xaw a doy waar. defe naa kooku nga nag boo nekkee wàcc bees xamoo lan assemblée nu muy doxee <laughs> ak prérogative assemblée nationale li nga ciy wax dafa war a yem parce que xam naa ne loolu muy wax président bi du ko wax. premier ministre bi war a ñëw foofu du ko wax député yi kon moom na xam lu muy wax na xam na mesurer ay waxam jëm ci député yi parce que député yi dañoo autonome mhm. député quand li ko li ko yóbbu foofu mooy lii yóbbu jomaay pale bi mu nekk tey mhm. kon dañ koy respecté jox ko cër jox ko gëddam mu respecté la jox la ci sa cër ak sa gëdd loolu defe naa ne ñoom xam nañ ko bu baax. mais ki ko doon wax moom moo xamul. xam naa la ma la wutalee ak ñoom parce que ñoom jëmoon nañoo daaneel gouvernement Amadou Ba. waaw nee nañ ñun du ñu ba xam yéen du ne ay ay ñoom luñ ko luñ ko doon defee ñun dañuy xool mbir ba xam ne lii baaxul saytu ko ne baaxul ci sénégalais yi ñu doog koo kii mais nag du premier ministre na ñëw na rek ñu def motion de censure di ko sanctionné mbir la boo xam ne euh, euh, nekkuñu ci mënuma wax ci turu groupe bi mhm. mais jàpp naa ne suñu groupe parlementaire à travers le président Abdou Mbow nekkuñ ci ay dynamique euh, ay ay bloqué wala ay motion de censure bu fekkente ne li ñuy won ak li ñuy jox mhm. méngoo na ak li sénégalais yi di xaar mhm. danañ leen ci gunge ba mu mat sëkk bu ñu defee leneen nag ah bu boobaa ñun danañ gise toog waxtaan